daanaka ci Afrique nga jël club bi indi ko 19 waa club bi ba ñu amee fulla balaa championnat bi jeex dañ lay wàcce waaye heure Sénégal nag du nekkul club mais gis nga tey bu doon club de foot la dañ dàq nañ leen bu yàgg boobu parce que sinon équipe bi day dem teer léegi yow fekk nga xale yi ci taux boo xam ne kenn xamul nu mu élevé ci ñàkk liggéey yow benn ñaar lañ la sant équipe bi boo ko mënta yéegal mais maintenir ko mm-hmm. mais yow déet nga egsi nga ne for 700 personnes ñom xeyatuñ mom ñanga tok maçon yi doon liggéey ci santé yi nee nga baare naa ñanga tok di xaar yenn kër yi nga xam ci presse bi dag nga seen convention yi ñu doon liggéeyal ministère yi mënuñu fay seen emploi seen emploi ngi tok di xaar première bête suba lay da paré annonce bi defo 800 personnes nga fa woon dañuy tok xaar jakarta yi ñi ngi xëy de waaye boo xëyee ba ngoon bu la alkaate yi jàppee la nga liggéeyoon ci journée bi yépp nga fayee ko pénalité lañ lay dàgg te alkaate yi ñoo ni seen yoon parce que mine <laughs> directeur police moo leen ko sant ñooñu seen xëy mi ak bañ a xëyee yam da nga leen di considérer comme ku xëyut ndax liggéey nag bu yemook tëdd tëgg tëgg tane ko ñoom ñi ngi toog ba tey ñi may lim ne ay nit lañ de marchand ambulant yi nga jëlee ci mbedd yi ña nga toog léegi man bi ma defee sama décompte pour bañ a juum deux mille quatre cent personne yoo xam ne ci ñoom seen régime ci lañ ñàkk xëy ci maanaam dama ko estimé nii rek ëpp na ko parce que différents ministères yoo xam ne bari na contrat yu fa dakkal ay direction yu bari kon am na contrat yu ba dakkal nañ ko ñooñu recensé wu ma leen waaye li ma jot a recensé gum nii li génn port li war a génn ci première bet li li li war a génn ci yeneen société ak LONASE dama fàtte deux cent cinquante yi war a génn LONASE ñoom. deux mille quatre cent et quelque moom ña nga toog booleeg li nga fi fekkoon cest à kon bu ma la ko waxee équipe bi fi nga ko fekkoon yow coach bi ñu dàq fa mu ko yemale woon yow da nga ñëw nag gën a wàcce équipe bi c'est-à-dire Sénégal bu doon mën nañu retirer président bu doon contrat lañ signé boo xam ne mën nga jël bii rek gome kon ñi xam nga tàggoog nañoo ñoom bu yàgg mais nag yàlla dafa dogal ni ñuy fale mënuñoo rectifier mm-hmm. mënuñoo révoquer président bi mm-hmm. mënuñu ko wàcce munuñu ko waxon ñola falon faloon falatuñ la yo mënatuñ ko motax avangai avant ngay fal motax ñi doon fal jomay ñu leen waxon avant ngeen di fal wa passef te ngeen a ñu gumba teux lu melne ku ko tayul daw rek sombo ko parce que ku xaru nak ku ku rep nak ak ku toxo yam loko mën wax du ko deg ñi nak ndekk dañoo répondre té nak lima ci gën affaire yi nak amna ci nakar waye ba neex be ëpp ndax ñi leen falon ñooy continuer di jooy man loolu ma ci gën a neex parce que man sama koñ bu may génn baraada boobu maay fekk ñu koy teg su may génn xëy si fii ña nga teg baraada ba su may wàcc guddi baraada ba ña ngi koy teg xaw ma nag ban heure la ñu xëy te ñooñu. Abdou nag arrêté loolu. non si non non non mënoo réjouir ci ci ci malheuru keneen nag yow itam. xaw ma xam nga ñoom man ci li ma wax ñoom. am na ci ñoo xam ne man ak ñoom am nañ ay euh, jote nañ sax pour jomaay ba léegi maa ñoom salaamaaleykum ma romb jàll lañ sékk ñenn ñi romb jàll lañ sékk du ñu wax ngir jomaay bi ñu arsalé woon ñenn ñi dañ leen a dugal kaso bañ génn ñi ci ñi jàppoon ci manifestation yi la bokk. Mm-hmm. waaye walla yi bu may xëy ña nga toog ca jotaay ba ñaaray gaare Jakarta ñi ci des toog boroom café Touba bi ku amee fukk jënd su may wàcc guddi falaa leen di fekk ñu toogaat. te jomaay rek lañu yaakaar ndax moo taxoon ñu doon taal alali jàmbur yi moo taxoon ñu dugg kaso léegi nag man gis gi ma leen gis foofu ñu toog te naruñoo xëy bànneex la ci man ndax bu ëllëgee bu keneen ñëwee di laaj réew mi dinañ xool kii ndax mënal na ma dara kii ndax am na programme. Mm-hmm. parce que nag programme ci la ñuy fal bu. Mm-hmm. léegi léegi defal micro territoire nga laaj ñi woon passif lan la tax ngeen fal jomaay so livre solution de lañ lay wax te kenn gisatu ko. projet bi kenn da fooy jaar. ayca gisatuñu ko moo tax problème bi mooy. dëkk bi fi mu ne nii. neex na ci ñenn ñi de waaye nag metti na ci ñoom ñi leen fal. ndax ñoo fi ñàkk xëy ñoom sax mu su moom xëy nag waa Pastef moom boo waa xale Pastef dañoo xam sax ab liggéey ñoom xam lañ xam yor sa portable na riir a riir ñu yónnee la benn connexion. connexion moom duñ ko manqué nitu Pastef seetlu kenn du ci manqué connexion parce que am nañ fonds yuñ dajale pour. di am spécial ñoo xam dañoo yor ay commission ci biir passif ñoy servir goné yi ay connexion connexion bi dañ ko manqué une deux trois ñu duggal la chaque weer lañ leen di duggal ay connexion moo tax saaga ndey partager dugg loolu man nañ ko waye xey liggéey duñ ko gaaw def de lool mom nañ ci bàyyi xel parce que ñi duñ leen wutal xey ndax ñi ñi ngi wàññi ay employé nañu te yow imaginer 2400 personnes ku nekk bu dundalé ñaari nit ci gattal te xam nga ne am na ñoo xam ne am na ñu ñu dundal lépp ñaari nañu am njort bu rafet ni solution. dina am par rapport ak solution bi xoolal <laughs> oto bi gis nga BRT bi booy dem Dakar nañ ngay jëm mais boo duggee ba jëm nii kañ nga ak Dakar tant war wëlbatikuwul rek mënoo am sa mënoo am sa xel ne dinaa dem Dakar parce que Sénégal nii la jëm léegi léegi fi mu ne nii bu demee ba wëlbatiku nga ne ah léegi nag ñi ngi dem léegi ñu egg mais fi mu ne nii da gën a sori développement. Ah, d' accord bu Camara. Oui. la marine nationale comme ni ñu koy waxee mi ngi amal liggéey bu am solo ci euh, immigration clandestine ndax ñi ngi surveiller côte yi euh, des fois également ñu euh, arraisonné ay bateau yoo xamante ne ni dañuy bàyyeekoo fii pour dem bitim réew waaye est ce que euh, à eux seuls mën nañu am une solution wala mën nañu arrêter cette saignée là. c' est de buñ ko bëggee parce que ñu ngi xarale ak jumtukaay yoo xamante ni. jamono fa la toll. pour surveiller côté yi ci ñi nga xamante ils sont sous-équipés parce que gaalu locho yi kay jël euh daanaka bëriwul équipement bobu non d'accord donc pour ñu surveiller euh affaire yi pour man loolu mëna nek la ñu leen jaajeufal mhm. euh mais ig bi euh c'est vrai que en tukki mom besoin bu naturel la amna na ñoo bo leen joxone tay fi je sais pas moi un truc à 50 millions. Mhm. saa yi dañ koy taxañ dem ci ñoom la mais nak

Euh, mu mu créer nag ay ay ay ay ay paradigme wala créer ay truc yoo xamante ni xale yi danañ ci gis seen bopp. Mhm. Euh, xaw ma contre feu lañ doon taal xaw ma naka mais pour man euh, ils étaient mal partis vraiment bi ñu attaqué secteurs yi nga xamante ni c'est des secteurs à problème. Mhm. après nekk yu sensible parce que xale yi ngay gis nii ñuy ambulant pour man xataluñ kenn ndax mhm. ku ñu wër di dox gàddu yu bagage ñay xatal kay mooy ñu teg table te ñëpp ay sénégal lañ yuy daan seen doole. da ngay dem jàkka waxtaan ak nit mu ne la su ma xëyee fii waa dëkk ba ñama fa ba ñu ngi toog dama xaar donc li may jaay fii ba midi laa koy dajale yónnee leen ko ñoom ci la ñuy dépense ci jour bi mm. muy euh, des des aveux euh, yoo xamante ni daf lay won euh, baromètre fu mu toll ci dëkk bu métti ci nàngam pour man nag ay nit la yu jël nguur bees am ay affaires yoo xam ne bëgg nañ cee taxaw mais nag mooy li ma daan wax ci ñoom rek ils sont de bon élèves nag ndax euh, semaine ñu déjà pour les collectivités euh, locales un fonds de dotation parce que mm-hmm. fonds yooyu permettre xale yi bourse permettre ñi permettre permettre lu mm-hmm. donc comme ñu ngi commencé euh, di di di bi muy donc nit ñi nangam jara xel la ndax mu taxaw pour vraiment loolu bu euh, nit ñi dana leen fekk palais mbaa génn ci biti nit ñi jàkkaarloog ñoom te on le le souhaite pas maintenant ces jeunes là il faut créer des solutions xëy na ñu ngi wax euh, le truc euh, civique national. Mhm. xëy na ils vont peut-être premier ministre gis nañ ne jëlee na ko fële ministère de la jeunesse yóbbu ko ci primature. peut-être que il veut en faire vraiment un truc très sérieux mhm. te ñu leen ñu mën leen a fay ay salaire yu baax parce que Sénégal yi jamono dab nañu c'est une réalité. Mais salaire c'est un problème au Sénégal. Mm. La location est tellement chère. Tu vois presque 7 ou 8 personnes dans une chambre pour les Ni a sax am ci ay ont yu sax tu louer plus de deux personnes wala des famille nga duñ la jël euh, yow ku ci nek bëgg nga bu vraiment euh, nogoy ma nga vraiment nga indi ko wala arab ma nga ba waalo nga daal di ko indi loolu c'est des souhaits ku nekk bëgg nga booy dund évoluer euh, voilà ci nekk ci ay dimension wala bokk niveau social bu baax yooyu bu fekkente ni yii dafay bëpp di dem euh, bu yàggee dafay compliqué mm-hmm. euh, loo dajale finalement waa tali bi nangul la ko da ngay bëgg a dajale sa cent mille bi la desee xol bu jeexal ci jàpp nga ne xaaral ma jël gaal yi dem. Mhm. parce que nag problème bi c' est c' est partout pareil. tant au niveau de l' emploi qu' on trouve pas. Mhm. et si on peine à à le trouver euh, c' est un problème de de de paiement de salaire gis nañu waa FERA ñu ngi taw ba tey am na ñoo xam ne kay 6 mois. Euh, les âges du du du du ministère de la jeunesse euh, ñu ngi leen waroon a fay ñu avance mu des mun nañu citer ah ñu bëri ñoo xamante ni environnement ak ñeneen ak ñeneen si les jeunes yoo xamante ni munoo wax ne ndaw Sénégal bëgguñu liggéey parce que soo ootee ci dara tay ni nga ne damay emploi vie. non fi fille bi mm. parce que autant de personnes droit à l'appel parce qu'ils veulent travailler. ils ont des charges ils ont des choses ils xam dañ koy def. Mm-hmm. kon surtout état. nga mi lañ loxo. Mm-hmm. yaxanal yaatal. Mm-hmm. fay nit ñi salaire yu euh, vraiment leen ci ci ay conditions peut-être que ñay danañ danañ dem ci peut être ci anam bu normal voilà parce que sénégal neex na neex boo xamante ni saa boo génnee ngay xam mhm. parce que am na habitude yooyu am même eh, nous qui venons de l'intérieur ah mhm man buma dem ni legui léegi ndoofaan mango galay nek lan sama lippikoo di di di di njoowaan <laughs> imagine quand je viens à Dakar c'est à 5 h du matin à 21 h j'ai même pas le temps de de de de, de vivre comme on dit kon bo génnee da ngay gis né Sénégal am fi dara mhm. tok fit mo tané dëgg la Adama euh, immigration clandestine daanaka su bëggu yalla sak ñu wax ci da ngay wax ba doto amaté sax lan nga ci wax wayé mëno baña wax parce que euh, ñi nga xamante ne ñoo ci nara addu dafa melni ci mutisme bu doy war lañu nek xeyna peut-être le fait que ngay xey yow itam chaque matin euh, di ci euh, addu mën na nekk sax une alerte euh, ñu mujjee réagir par rapport ak fléau bi nga xamante ni, mi ngi gangréner non seulement l'Afrique mais mi ngi jéxal suñu ay doom. exactement en tout cas doy na waar doy na trop ça yo xëyee japp ni mbir mi day day day arrêté da ngay gis ne day gëna day gëna continuer te loolu nag li waral moy ñàkk a gis seen bopp bi nga xamante ne ñàkk nañ ko gis seen bopp ci rew mi ñu ne parce que yaakaar naa bo fi gisee sa bopp moom doo am dara lo xamanteni dang koy envisager yeneen dëkk yi pour mën fa pour mën fa dem hmm. donc sur ce euh, dañuy interpeller waat bu baax a baax état du Sénégal mu jema xol yeen mesure lay jël parce que boy bëgg nañ liggéey bu mi ngi koy wax tay bo yow wo fajar di liggéey wallahi asib arrêt ba ngay taxaw ay milliers de personnes wala des centaines de personnes ñum ñoo fay nekk te arrêt bo dem da fay fekk ay nit ñu taxaw bëgg nañ liggéey da ngay gis ñoo xamne ñi dem si station keur Massar gaddu seen ay pel tok di xaar ku ñew di ut bar mu jël leen yobul leen da ngay gis ñoo xamne dañuy dem ci ci si ay ay usine dama dama ci gis ay usine yo xamne da ngay dem téra dem pour ñu jël la bu la jëlul nga gàdduwaat nga doxat doxaat ñibisi comprendre nga guddigi nga demat pour ñu jël la après nga ñibbisiwaat ça veut dire que boy bëgg nañ liggéey liggéey mais liggéey moom moo amul liggéey amul ñi nga xamante ni as néew af nañ am nañ ay liggéey la ñu fayeeku baaxul tay fonds comme yooyu noonu nek nek nek nek impôt de domaine nek fenen ak fenen milliards yooyu buñ ko jëloon yokk ci salaire boy je pense que dina am sax loo xamante ne day wàññeeku moy indi wat conséquences yi nga xamanteni mom moy am ci yenn mbiri état du Sénégal encore une fois nañu xolat yenn yenn matukaay la ñuy jël mm. ba nga xamanteni c'est-à-dire employabilité des jeunes dinañ ci gëna dinañ ci gëna accentuer wu politique de jeunesse bi ñu gën ko ñu gën ko faratal ba nga xamanteni jeunesse bi dinañ gis seen bop ci réew mi mm. euh, ñi nga xamanteni aussi ñom ñoy entreprise ñu bay exploitation bi ñuy def ci seen ay entreprise mm-hmm. salaire bañu wara fay jeune bi nañ nga ko fay temps de ba mu war a liggéey nekkul liggéey mais yenn exploitation yi que c'est c'est déplorable loolu nañ ci aussi nañ ci bàyyi xel mhm. parents yi aussi nañuy comprendre seen doom parce que parfois am na ñu bëree bëri ñoo xam ne ñu ngi jël gaal parce que kàddu yi ñuy yëkkati la di ko teg seen ndodd ay kër mhm. seen famille parfois ngay dégg pression sociale ngay dégg ay kàddu yoo xamante ni jël gaal mooy

jeunes yi tamit nañuy am li nga xamante ne mooy patience mhm. cest à ko am da ngay dinañ mhm. mhm. dinañ am yeneen yeneen yeneen yoo xamante ni dinañ ko am boo xam dinañ dinañ soxla suñu ay jeunes duñ leen gis encore une fois nañ ci def lu ñu ci war a def ba nga xamante ni situation bi dina mën a décanté wu ànd. ñuy lancé waat encore une fois euh, un appel solennel aux autorités ñi nga xamante ne nii euh, ñu yilif ndaw ñi ñu bàyyi leen xel bu baax a baax euh, parce que nag tey bu ñu àddu woon xëy na dina am loo xamante ne ni diñu ko dina ko mën a wàññi donte teguñu wala bokk gisuñu ay jéego yoo xamante ne ni teg nañu ko allant dans ce sens là waaye ñu génn rek wax ak ñi na euh, sax euh, wàññi li nga xamante ne ni euh, moom moo di nekk di déroulé wu actuellement soxal ce phénomène là waxtu wi xoj nañu nag ma fàttali ni bokk ci lu ñu doon déclaration de patrimoine bi nga xamante ni le président de la république doon